démb ci altine ji gendarmerie bu Hann teg loxo ñaari jaaykatu yàpp ñu fekk leen ñu teg seeni paaka ak jaasi di fees ay fas lu ni mel askan wi yeewoo ca yaraax di ko ñaawlu lool ba tax na kii di Fatoumata Ba nee na lu nu mel dugg guleet. loolu kay yàgg na fi amoon na fi xanaa kay dafa dañu dañu dekkalaat cosaan mais amoon na fi mais loolu baaxul yàpp fas nga jël ko di ko jox askan wi ñu di ko lekk suñu paree jël ko yóbbu ko seeraas. ñu mu jaxasoo yàpp xar yi ñu di ko jaay nit ñi ñu ngi lekk ma xamuñu lu ñuy lekk nit ñu xamuñu lu ñuy lekk dafa nga ni loolu jàmm la yàpp fas fas kenn da koy lekk yàlla dafa dig la ñuy lekk fas ñu ren di fas di ko di ko jox askan wi ñu di ko lekk ah man ba ma tey jii sama xol dafa jeex ndax fu mu nekk nii loolu bu ko lekkee rek naa lii rek mën nañu jural malade bi feebar bi am na lii mën na ko mën a ànd si sama xalaatu bopp laa wax te fas ñun xamuñu bu ñu demee marché xamuñu lu ñuy fekk marché di jënd xamuñu yàpp nag xamuñu yàpp xar dañuy jënd rek ñoo togg jox suñu njaboot ñu togg ko lekk. ba tax na askan wa di jam baaraamu tuuma autorité yi ndax ñoom ñoo war a saytu kaaraange askan wi ci yàpp yi ñuy jaay ci marché yi. waaw loolu am na li nga xam ne ne photo état la parce que yàpp bu ñuy jaay dafa war a jaar seeraas mu am tampon ñu kii ko mais am na ñi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi nu leen neex la ñuy reyee moo tax bu ñu la joxee yàpp it doo xam yàpp fu mu jógee. kon loolu loolu la ñu war a contrôler yàpp bu ñuy jaay ci biir marché yi wala table yi ak dañ ko war a saytuwaat ba mu baax autorité ñoo ñu war a jàppale te yàlla rek tax mais xam nga dañuy toog dañuy wax wax wax nii gars yi jël di rey gars yi fee ne dañ leen jël ay yàpp xaj sax di dugal ci marché yi yooyu am na fi ampa gars yi depuis temps euh, sangor ba léegi dañuy wax bàyyi nañu dimbale nañ jël seen responsabilité xam ni jullit yi dañoo sonn dañu war a dañu war a dimbale ñu xool ci yoon bu gën a baax ñu jaarale ñu fa ñëpp nekk si jàmm mais dañuy wax bàyyi yéy ni bàyyi instant dañu war a dem seedaax di xool parce que ñoom dañuy dugg si àll bi la ñuy làqatu def li ñuy def ba def ko ci ay saako yenn ko yóbbu seera sama classe gi nga xam ne xàmmeewuñu yàpp xar xàmmeewuñu yàpp nag xàmmeewuñu yàpp bëy man du lekk yàpp bëy mais tey boo ma tegaloon xaw ma ko dinaa ko lekk yàpp fas boobu tey ma ko tegaloon dinaa ko que xaw ko dafa jot nag ñu dugg si biir di vérifier di xool affaire yi di affaire yi parce que loolu rafetul ñaaw na torop ci gis-gis ak dégg-dégg wala ñu di saytu li ñi di lekk parce que lii baaxu ndax jàngoro bii moom li mën a jàngoro jàngoro bu nekk ah lii moom war nañ koo si saytu dañuy jàpp teg ay daan mais duñ teg ay daan dangay keneen bu sawaa keneen da koy defaat keneen da koy defaat parce que dëkk bee metti loolee tax askan wi jug taxaw temb ne kat yu ñaawteef yi dañ leen war a daan ay daan yu metti ñooñu daal bu ñu leen jàppee moom lu yoon sa digle si ñoom nañ ko def léegi itam léegi bu nekk lii am na tamit ko jàppee daal moom ñu tëj leen à vie que lii baaxul ñooñu moom bu ñu leen sanctionné woon sanctionné encore bu diis ku ko xam ci ñu ko doon def dana ko bàyyi nañ tay fete gi ñu amaan leen xaalis kese loolu mooy problème bi keneen bu ko déggee dina jël ay responsabilité am ah, loolu mooy dëgg nag parce que sa Sénégal bi sunu Sénégal la quoi. altine ni ki démb gendarmerie bu aan teg loxo ñaari jaaykatu yàpp fële ca yaraax ñu fekk leen ñuy fees ñaari fas. loolee tax askan wi di laaj na dañ ko doon yóbbu fële ca Seras di leen ko jaayaat ba tax na journaliste Dakar Actu yu demoon fële ca marché Seras ngir taataan kàddu jaaykatu yàpp yi waaye ay xas lañ fa jële autorité yi nekk Sogas nangu wunj àgg ca marché ba lañu taafantal mooy amuñu autorisation pour dugg ci bile marché bu ñu jógee ci loolu ñuy woo waa ministère de l'élevage waaye bëgguñu see yey yàbbi ci fàttali atum 2019 ay agent yu service national d'hygiène gisoon nañ fële ca technopole à pass bu ñu rey wante yàpp ba kenn tegu ko bët ay at ci ginnaaw junni deru mbaam lañu gisoon bu ñu ko xayma mu nekk juróom ak juróom tonu yàpp wante bi élément ministère de l'élevage yi defee ay gëstu ñaar fukki ton rekk lañu gis junni ton yi ak juróom naax saay lu ni mel jaaxal askan wi ngi ñaan autorité yi ñu jug ci li nu mel nu mu gëna a gaawee